أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi tey noo ngi ànd ak yéen ci juróom benneelu saar ci alquran saar bi di suura al an'am mu wàcc makka léeg-léeg ci njëlbeenu saar yi ñuy wax ne alquran 114 saar la 92 yi ñoo wàcc makka 22 yi ñoo wàcc Médine saar bi di suura al an'am dafa bokk ci saar yi wàcc makka wa ayatuha xamsa wa sittuna wa mia téeméer la ak juróom benn fukk ak juróom ay aaya mu ne bay na ya day suura ñu présenté leen tey njërbeenu dars mooy saar bi la ñuy présenté mbokk yi mu ne suuratul an'am ihda suwar al makkiya at tawila saar bi di suratul an'am benn la ci saar yi nga xam ne màkka la wàcc waaye saar yi gën a gudd saar bi ci la bokk saar bi yaduuru mihwariha saar bi dafay tourner di leeral di jàngale loolu ñuy wax al aqida wa usulul iman saar bi lépp ci li muy jàngale mooy pas-pas saar yi wàcc màkk moo tax saar yi dañoo tàng jër lu tax ndax ay yéeféer la doon waxal ak ay mushrik ay bokkaalekat moo tax saar yi wàcc màkk ci pas-pas la ñuy wax di leeral cosaanu ngëm wa hiya taxtalif fi ahdafiha wa maqasidiha ani suwaril madina moom saar bi dafa wuute nag jubluwaay ak hadaf hadaf mooy li nga namm li nga bëgg a def saar bi dafa wuute jubluwaay ak li mu bëgg a wax ak yeneen saar yi nga xam ne Medina lañ wàcc saar yi wàcc Medine li ñuy jàngale mooy sharia julli leen woor leen joxe leen azaka aji leen màkk sëy nii la miraas nii la amma saaru màkk yi nag ñoom pas-pas rek tawxiid moo tax mu ne saar bi dafa wuute jubluwaay ak bëgg-bëgg ak saar yi wuute Médine jóge Médine saar bi dafa wuuteeg Baqara wuuteeg Ala Imran wuuteeg Nisaa yi wuuteeg Maida Baqara gis ngeen li muy jàngale Ala Imran romb ngeen ko Nisaa kazalika Maida yooyu saar ñi ngi jàngalee sharia amma saar bii di An'am moom li ëpp ci saar bi jàngalewul benn atte boo xamante ne mbooloo mi ñuy wax jamaa al islamiya war nañ kaa dund déedéet jamaa islamiya nag su ko borom téere yi di wax mooy jullit ñëpp xam ngeen jullit ñëpp jamaa lañ war a doon comme ni ko yàlla waxee ci alquran waatasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu ngalawaay jàpp leen ci pas-pasu islaam yi bu leen wuutee moo tax borom xam-xam yi léeg-léeg bu ñu lay orienté surtout ñi nga xam ne euh, xam nañu jàng nañ fiqu daawa dañ lay faral di wax seen téere jamaa at tanzimiya li jamaa al muslimin mu ne saar bi ñëwul mel ne yeneen saar yi di jàngale lu mel ne koor lu mel ne aj ah lu mel ne mbugal comme ku njaaloo luñ koy def wala ku sàcc luñ koy def saar bi ñëwul di jàngale loolu saar bi ñëwul di jàngale xeex alqitaal ak ñi xeex ñi xeex ci diine ñi xeex ci islam di contre islam lan mooy na war a nekk seen àtte déedéet comme yeneen saar yi ni ñëwee di ko def di nettali ahlul kitaab wala ñuy nettali mbirum nasaraan yi wala mbirum naafiq yi saar bi ñëwul di jàngale mbokk yi lii lépp ñu wax saar bi jàngale bu ko wa innama tanawalat saar bi dafa ñëw di jàngale alqadaya al kubra sujet yi nga xam ne sujet yu rëy la al islamiya tomb yi nga xam ne tomb yu gën a rëy ci lislaam muy tomb ngëm yàlla tomb pas-pas saar bi mbokk yi loolu la ñëw di jàngale wa hi wa hadihi alqadaya yumkin nulaxisaha fi ma yali mu ne saar bi li mu ñëw di jàngale danañ la ko tënkal ci tomb yi di ñëw bu ci njëkk mooy qadiyatul uluhiya mbirum yàlla saar bi dafa ñëw di leeral mbirum yàlla kan mooy yàlla beneen bi mooy qadiyatul wahyi war risaala saar bi ñëw di jàngale mbirum wahyu ak message bi yàlla yónni yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñetteel bi qadiyatul ba'si wal jaza saar bi ñëw di jàngale dee ak dekki kon saar bi fa ñuy tàmbalee ba fa ñuy jeexale borom téere bi mu ngi xamal ne ñett mbir la ñuy jàngal bi ci njëkk mooy al uluhiya nekkuk yàlla yàlla ñaareel bi mooy daf ñuy jàngal wahyu ak yonent gi ñetteel bi daf ñuy jàngal dekki ak fay ëllëg yowmal qiyaama ci kanamu yàlla buñ dellusee ci tomb yi mu wax de di leeral li nga xam ne moom mooy daawa al islaamiya danañ fekk saar bi nekk lay wu leer nañ wu weex tal nekk ay dalil yoo xam ne day convaincre doomu aadama nekk al burhan al qaati ay lay yu weex tag yuy dagg fi tariq al iltizam wal iqtina nga xam ne day convaincre nit pour mu engagé wu waaye mu convaincre ko ba mu nangu xam ne islam moom mooy dëgg moo tax saar bi mbokk yi nekk wàcc màkka di wax ak ay ñu nga xam ne ay bokkaalekat lañ woon di leen gestuloo di leen wëlbati seen xel pour ñu settantal mbir yi yàlla di wax ak ñoom saar bi uslub boobu méthode boobu la saar bi daa di jàngale pour fexe ba convaincre nit ba mu engagé wu ci pas-pas bi muy fas yàlla subhanahu wa taala bu ñu ñëwee ci tomb bu njëkk bi ñu fekk mu nekk uslubu taf taqrir méthode saxal mu ne fa inna alquran yuridu al adilla al mutaalliqa bi tawxidillahi alquran li ëpp ci saar yi rawatina saar yi wàcc màkka dañuy fekk muy leeral di gaaral tomb bi ñuy wax kennal yàlla kennal yàlla te mooy def yàlla mu nekk kenn looloo tax mbokk yi da nga fekk ci saxaaba yi fekk ca mbooloo lislaam bu yàgg ba ña ca duggee lislaam màkka ñoo gën a dëgër ña duggee lislaam médine lu tax loolu même fii sax ci sunu dëkk yi ñuy dund da nga fekk sunniti démb yi ñoo gën a dëgër ñu tey ñi da nga fekk li ñële doon daw démb ñii tey seen yoon nekk dañ koy rajaxee seen yoon nekk même sax ci jigéen ñi da nga fekk muuraayu démb yi moo gën a baax muuraayu tey loolu nag lu koy waral mooy chaque jour formation bu njëkk même ci borom kër yi da nga fekk taaw bi ni ko papa ji yaree ak caat bi du ñu kuy gën a yaru lu tax boobu ki lay yar mi ngi dese doole mi ngi dese kàttan bañu ci dara ah mi ngi am xam-xam fii doom yi bëri na soxla yi bëri na dugg-dugg yi bëri na amatul sa jot ah ba pare léegi doom yi sax dañoo bëri nag mbooloo yi chaque jour formation bu njëkk mooy gën a dëgër ñu mujj ñi moo tax ba gis nga waa màkk soo jàngee taarixu islam doo fekk waa mur waa màkk su yàlla di wax naafeq yi gis nga ba muy wax naafeq yi dafa ne ñan la waa Médine parce que wax na waa màkk la waa Médine la wax ah allahu akbar lu tax c'est parce que foofu yonent bi daa yegg si rek ñëpp ñëw dugg mais fee ku fa duggoon démb dañ lay wulli ba nga nooy yenn saa yi ñu rey la yenn saa yi ñu lakk la yenn saa yi te derawul nga gis gars yi dëgër këng moo tax formation bi foofu la woon moo tax saar bi ñëw di indi métatu saxal saxal goo xam ne dafa dépendre dafa aju ci kennal yàlla wa dalil al mutasawiya ala wujudihi wa qudratihi di wane ne yàlla subhanahu wa taala jalla jalaaluhu moom de ku am la waaye borom kàttan la borom nguur la waaye mooy ki noot wa sultaanihi wa qahrihi li saar bi dafa ñëw di ko leeral ne yàlla kenn la yàlla moomu am na yàlla moomu borom kàttan la yàlla moomu dafa am nguur yàlla moomu moo noot waaye ba tey fii suura as-sa'nil muslim saar bi ñëw di leeral dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg modelu jullit kan mooy jullit lan moo war a nekk ay jikkoom lan moo war a nekk melokaanam ah saar bi mbokk yi dafa ñëw di wax ci li lu baree baree bari bi muy wax sax yow ak kennal yàlla ak pour nga gëm yàlla am nay aaya yoo xam ne boroom xam-xam bi téere bi daf la ko indilaale ne la yàlla yoon wii la jaarale pour xëcc gaa yi pour ñu gëm muy utiliser benn baat benn bu tudd huwa mu ne huwa alladi xalaqakum min tiin mu waxaat wa huwa allah fi samawati wal ard mu waxaat wa huwa alladi yatawaffakum billeil mu waxaat wa huwa alqahiru fawqa ibadi mu waxaat wa huwa alladi xalaqa alsamawati wal arda bilhaq gis nga saar bi dafa ñëw di wan nit ñi kan mooy yàlla mu ne huwa alladi mooy ki nga xam ne xalaqakum min tiin moo leen binde ci ban yemu fa mu ñëwaat ne leen man maay yàlla moo xam ne maa nekk ci asamaan ak suuf wa huwa wa huwa allah fi samawati wal ard mu ñëwaat dina wa huwa alladi yatawaffakum bil leyli maay ki leen di rey bu ngeen nelawee bu ngeen nelawee maa leen nelawloo mu ñëwaat ne man maa maa noot jaam ñi wa huwa alqaahiru fawqa ibaadi maay ki noot jaam ñi te ba ma leen noot fawq seen kaw laa nekk wa huwa allazi xalaqa alsamawati wal arda bil xaq maay ki bind asamaan bind suuf waaye ci dëgg gis nga foofu kon li mu la doon wax sànq ne saar bi dafa ñëw di la jàngal tawxid loolu mooy uslub at taqrir mooy méthode saxal mu ñëwaat fii di la jàngal uslub at talqiin boo xam ne dañ la koy sax dañ la koy jàngal dañ la koy dee mu ne fa innahu yuzhiru jaliyan fi taalimi rasul nee na loolu bëri na sax yenn saa yi fu muy feeñ ci njàngalenu yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy def lan talqiinul xujja li yuqsifa biha fi wajhi alxasmi léeg-léeg ngay wax ak nit pour mu indi la dalil yu la convaincre mu indi la ay preuve yu leer nañ yoo xam ne daf koy teg sa kanam ah def lay laaj ay laaj waaye laaj yi lim ciy jublu mooy boo tontoo rek mu convaincre la misaal ngay wax ak ni mu ne la yow jullit nga wala doo jullit boo tontoo rek dee man jullit laa mu ne xam nga nii kon du jëfu jullit gis nga jeex na mun naa saar bi dafa utiliser méthode bu demee noonu laaj nit ñi lan qul ayu shay'in qul liman fi samawati wal ard waaw maa leen di laaj yéen kan moom moom asamaan ak suuf looy tont boo ne allah ñu ne la kon yàlla moomu nag nangam ak nangam moo tax gis nga sànq uslubu taqrir fii mu ne la uslubu talqin saar bi laaj na qul liman fi samawati wal ard gaay biñ ne patt tontu mu ne qulillah kataba ala nafsihi rahma saar bi laajaat qul ayu shay'in akbaru shahada gaay tontu mu ne qulillah shahidun bayni wa baynakum saar bi laajaat qul afara'aytum in akhadha allahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahin ghayrillah yatikum bi gaay tontu saar bi laajaat wa qalu lawla nuzila alayhi ayatan min rabbi qul inna allaha qadirun ala an yunazzila aya walakin aksara annaasi la yalamun kon bii mooy méthode ak talqin laaj leen ana kan moo moom asamaan ak suuf kan la kan moo defar asamaan ak suuf suñu foog ñu ne yàlla la bu ñu tontoo bañ a tontu yow tontul qulillah wax leen yàlla la moom yàlla moomu kataba ala nafsihi rahma moo dogal ci boppam ne moom yërmandekat la te yërëmaate laajaan leen ayu shay'in akbaru shahada ban témoignage moo gën a rëy diggante nit ak boroomam suñu tontoo qulillah shahidun bayni wa baynakum yàllaay kii seede moom lay doxale sama diggante ak yéen waaye bu lem ci bu lem ci loolu laaj leen ba tey qul araaytum in axaza allahu sam'akum wa absaarakum wa xatama ala qulubikum laaj leen bis bu ngeen xëyee yàlla téye seeni nopp déggatu leen yàlla téye seeni bët gisatu leen yàlla kaste seeni xol ndax am ngeen fi buur beneen bu dul yàlla bu leen di indil lii kenn kenn li ñuy tont mooy amuñu ko yàlla newaat wax leen wa qaalu lawla nuzila alayhi aaya min rabbi ñoom de nee nañu lan moo tere woon yàlla wàcc ay aaye yu leer nañ yu bàyyeekoo ci moom ñu ñëw ci yow muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qul waxal inna allaha qadirun ala an yunazila aya yàlla day kat mooy borom kattan mooy aju dogal mooy moo mën su ko neexee mu wàcceel ma ay aaya waaye walakin aksara annaas laa yaalamun lépp ci nit ñi xamuñ kon gis ngeen mbokk yi saar bii di suura al an'am bi mu ñëwee di jàngale li mu jàngale mooy ci tawxid la xëcc nit ñi ci kennal yàlla pour wan leen kan mooy yàlla moo taxoon ci njëlbeen sànq mu ne leen saar bi melul ne baqara melul ne nisa melul ne ala imran melul ne maida yooyu ay sharia lañ doon indi ay loi def leen lii bàyyi leen lii jàpp leen lii mu ne wa hakaza turidu suura alkarima saar bi lii la gaaral li munaqasati almushrikin ngir mu discuter ak bokkaalekat yi moo tax léeg-léeg foog ñuy nangu di discuter di waxante ak ñi nga xam ne dañuy bokkaale wala dañoo jàdd yoonu yàlla subhanahu wa taala wa ifhamihim bil xujaj assaati ñu fexe bokkaalekat yooyu comprendre ifhamihim ñu comprendre loo leen bil xujaj ci ay lay ay dalil yu leer nañ yoo xam ne koo ko wax dootul laajaat leneen misaal yàlla nee na fii wax leen qul liman fi samawati wal ard yàlla wax na ayu shay'in akbaru sahaada yàlla wax na afara aytum in maanaam mbir yu mel nii ah yàlla di laaj uslub yi loolu doomu aadama yi dañ ci war a jàng jël ci méthode jël ci njàngalin di ci jël ay bind pour bu ñuy waxtaan wala ñuy wax ak ñii nga xam ne ay bokkaalekat lañ mu ne waaye hujjaj yoo xam ne yu leer naññ la alqaatia allati taqsamu zahir al batil yi nga xam ne boo ko dóoree rek day mel ne bomb day écrasé foofu ki ngay waxal dootul tontu waaw danaan patt noppi wala mu gëlëm wala mu muuma mu ngoog pourtant yonent yi loolu lañ doon def yonent yi nit da daan ñëw wax wax ju garaaw su yonent yi tontoo rek waa jooju daal di gëlëm c'est parce que dalil bu leer la lay indil waxu yàlla la lay indil loo xamante ne yàlla la bind waa ji ba mu jàppee yax bi ci suratu yaasin daan na yax bu fënax bii nga xam ne amatul yàpp dafa dee dafa nëb man yuhyal izaama wa hiya ramim kan moo koy dundalaat ak ni mu ràppee bi aaya bi ñëwee di tontu lu mu wax qul yuhyiha alladi anshaaha awwala marra wa huwa bi kulli xalqin waaw ki ko defaroon mënu ko defaraat qul yuhyiha alladi anshaaha awwala marra su benn waay ñëwee fekk tabax bu ñu tabaxoon tabax bi daal di ràpp yenn saa yi sax mën naa daanu wala oto la woon bu ñu defar oto bi yàqu wala portable la woon bu bees tàq mu yàqu benn waay ñëw ne lii kan moo ko mën a defaraat kooku lu ñu koy tontu waaw ana ki ko defaroon xanaa nekkatu fi su fekkee ki ko defaroon su fekkee ñi ko defaroon su fekkee société bi ko defaroon su fekkee ki ko tabaxoon a ngi fi di dund ndax mënu ko defaraat ah dañuy defaraat yenn saa yi sax mu defar ko lu raw gars yi dañoo dem Égypte ñu gis fa benn baar baar bu xam ne baar bu doy waar gars yi daal def attentat baar ba mab explosé ko nekk borom baar bi dafa am assurance waa assurance ñëw natt affaire yi ñu indi ay camion tibb xeer yi yóbbu sànni sawaay ñu fay waa ji waa ji ñëw defar hôtel bi ba mu gën a rafet ni mu meloon xam nga lu mu bind ci bind bi araadu xiraabaha wa araada allah an yaamuraha mu ne gars yi dañoo bëggoon ràppal hôtel bi yàlla nag dafa bëgg mu nice waaw moo tax mu def ko gis nga bu gën leen a merloo mu ne gars yi dañoo bëggoon affaire bi daanu yàlla nag dafa bëgg affaire bi dund est-ce que loolu la yàlla bëgg ñu sax mu bind ci loolu pour tàngal xolu ñi ñi def affaire bi loolu mu def ko fa kese waaye xam na ne yàlla bëggul baar waaye pour tàngal seen xol moo tax mu def ko ah da ngeen a bëggoon mu jóge fi yàlla dafa bëgg mu nekk fi kon mbir mu nekk chaque jour jullit ñi nañuy bàyyi xel bu baax a baax a baax tey li tax lépp ci sunu daawa mënta dem wala mënuñoo convaincre ay nit benn lu ci njëkk mooy jànguñ ñaareel mooy du ñu def uslubu Qur'an wala ñu jaar yoon yi yonent yi jaar méthode yi nga xam ne laaj bu nekk day am jawaab soal bu nekk day ànd ak tontoom ndax yonent yi kenn mosu leen a laaj te tontuwuñu mu ne wa min huna kaanat suratul an'am bayna sura al makkiya zaatu saanin fi tarkiizi daawa al islaamiya fii la ñuy gisee mbokk yi saar bi ci saar bi di an'am ñu gis ko ci biir saar yi nga xam ne dañoo wàcc màkka saar bi ëmb di di lu mu tuddati daf tarkiis di soññ di gën a wax ci woo nit ñi jëme leen ci woote yàlla ci islaam waaw saar bi dafa insister ci jullit yi pour ñu woote jëme ci lislaam waaye woote bi lan lañ ciy njëkke mooy kennal yàlla tabaraka wa taala waaw saar bi tuqarrir xaqaiqaha ay vérité yoo xam ne moom mooy dëgg yoo xam ne sunu borom subhanahu wa taala moo ko saxal waaye watu sabbit daaimaha daal bi ñëw di di di insister di saxal bu baax woote jëme ci lislaam waaye saxal ko waaye saar bi daa ñëw di ci di ko renforcer pour nit ñi bàyyi xel ne woote lislaam bis bu nekk dafay war a nekk waru fee jóg guddeeg bëccëg julli ñi dañoo war a nekk ay wootekat mais tey tomb boobu suñ ko doon xool danañ gis ne ñu bëri ci ñun liggéey boobu dañ koo sànni te yonent alayhi salaatu wasalaam mooy wootekat bu njëkk bu yàlla yónni sahaaba yi ku ñëw rek wuyu yonent bi lan la la yonent bi di wax li ma war moo la war li ma war man moo la war yal na yàlla yërëm abu bakrin siddiq radiyallahu anhu wa arda keroog ba mu duggee ci diine mu tàllal loxo ndeyjooram yonent bi tàllal seydina abubakar daal dina ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah jël loxo ndeyjooram teg ci loxo yonent bi yonent bi téye mu téye yonent bi sigg xool ko mu xool yonent bi abubakar na yonent bi diine ji ma dugg tey lan moo ma ci war waaw lii ma dugg tey ndax am na lu ma ciy xaar ndax war naa ci def taxawaay yonent bi ne ko waaw waaw mu ne ko lan moo ma war yonent bi ne ko li ma ci war moo la war yow maanaam man li ma ci war def yow loolu nga war a def gis nga ndeke kon diine diine jii di islaam li ci war yonent bi mooñ ci war ñun ñu toog fii ci jàkka ji kenn ku nekk ci ñun góor nga wala jigéen mag nga wala ndaw li ci war yonent bi moo la war Abubakar ba mu déggee yonent bi wax ko loolu ne ko li ma war moo la war Abubakar dafa génn premier jour mu indi Ousmane ibnu Affan ne yonent bi kii dafa bëgg a tuub ca suba sa mu indi Bilal ca suba sa mu indi Arxam ibnu Abil Arxam ci ginnaaw suba sa mu indi Ousmane ibnu Mazun bés bu nekk yonent Aboubacar dina ko indil kenn ne ko kii maa ko indi bés bu nekk bés bu nekk bal ci gàttal jàngeen al mubashirina bil janna ñi ñu ne yéen da ngeen di dugg àjjana ñaata lañ ñaata lañ ah fukk lañ diis lañ juróom ñaar ñi Aboubacar moo leen dugal ci islam juróom ñaar ñi ñi yonent bi xool ne diw mu ne ah dañ ne di nga dugg àjjana diw mu ne ah mu ne di nga dugg àjjana bañ mat fukk set yi Aboubacar moo leen dugal ci lislaam set yi set yi ah ñun ñi ñu toog ci biir jàkka ji boobu ba léegi kenn ku nekk ci ñun ñaar nit nga dugal damay laajte boobu ba léegi ñun ñu ngi ci sunna ñu ngi ci alxuraan ñoo ngi daw guddeeg bëccëg ñaata nit lañ dugal mbokk yi wala ñun kon li war yonent bi warunu kon li war Aboubacar warunu aha kay mbokki jullit yi delloo si waat sunu xel ci téere bii di téere yàlla téere bii di sunu téere téere bii di alquran nga xam ne tey moom mooy mujiza bi gën a màgg bi jàll yàlla jox yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam tey nasaraan yi mënuñ ci la indil kéemtaanu isa mënatuñ ko yahudi muñ la indil kéemtaanu Muusa amul benn yonent bu yàlla yónni woon ci ay nitam tey ba mu taxaw man laa indil kéemtaan mujiza muy kéemtaan bi ko yàlla joxoon lan la yàlla joxoon Muusa yat su ko dóoree ci géej mu xar su ko dóoree ci xeer mu génne ndox ah lan la yàlla joxoon Isa day dekkil ku dee day defar picc ci suuf sànni ko mu naaw day faj silmaxa day faj muuma tey yooyu yëpp teggeeku na soo doon wax ak am nasaraan nga ni ko indil ma kéemtaanu Isa ndax mën na ko indi ngay waxaan ngay wax ak yahud ne ko indil ma kéemtaanu Moussa mu ne mu dem udiyat nga ni ko dóor ko fenn mu dóor ko ci géej gi ndax géej gi day xar waaye tey ku mën a wax ak yow ne la indil ma kéemtaanu Seydina Muhammad nga gàddu ab kaamil teg ci loxoom wala ah li gën a rewaar mooy ci façon làkk bu mu bëgg tey gars yi def nañ ko ci même boo bëggee kaamil bu ñu traduire olof gars yi jox defal la wala boo bëggee kaamil pulaar gars yi indil la ko bu séeréer bi laa gisagut yéen a ngi ci waaw ngeen gaaw ngeen gaaw mu pare waaw mu ngoog ndeysaan maa ngi gis ay téere ndeysaan yu ñu defar ci pulaar di di firi ay saar gis naa kaamil bi ci olof gis naa ko yooyu yëpp lan la pour wan leen ne yàlla moom lépp ñëpp ay jot ñëpp ay jot ñëpp ay jot message bi day dem waaye warul taxaw noonu ñu ko defee ci loolu noonu lañ ko war a defee ci lépp ba ñëpp jot ci ñu nekk ñoo xam ne dañu war a liggéey ba téere bi daal di tasaaroo kon mbir maa ngi noonu téere bi daa ñëw di leeral ñii nga xam ne tey ñoom ñoo contre téere bi indi leen ay façon saar bi indi leen ay façon yu wuute ci ay tontu yu yéeme ak ay gis-gis yu muy leen di gendeekuloo ak ay discussion yoo xam ne discussion yu yu leer nañ ñi la yoo xam ne du discussion wu xuloo wala xaste wala saaga déedéet yépp ci xam-xam lay tegu loolu la saar bi indi fa yetuzakkiru tawxidullahi jalla wa ala fi l xalqi wal ijaad li ëpp importance mooy saar bi dafa ñëw di ñu indil tawxid boo xam ne sunu borom subhanahu wa taala moom lañ ko war a kennal ci bind bi mu bind nit ak amal gim ko amal fi lxalq wal ijaad mu nekk tomb boo xam ne doomu aadama yu bëree bëree bëree bëri buñ leen bëggee woon lislaam suñ leen jaaree ci tomb yooyu war lañ leen mën a indi ci ku bind ku defar asamaan kan moo defar suuf ku defar jant bi ku defar weer wi ku defar géej gi ak la nekk ci biir yow mii ku la defar ay tontu la yoo xam ne kan koy waxal amul lenn lu mu la wax rek lu dul yàlla la lu dul waa joo xam ne kàccoor yi ñoo ko préparé tubaab yi ko préparé jaaral ko ci seen daara yi ba mu egg ci fa mu egg soo ko ne asamaan si ko defar mu ne la asamaan ak suuf dafa def bing bang du dëgg benn bing bang la def asamaan daal di fële suuf daal di fële yàlla waxul loole dafa ne asamaan ak suuf dañoo kole woon benn dànk la alxuraan wax na bing bang bi de nangu na ko waaye kan moo ko def yàlla moo ne fa fataxnaahuma man yàlla maa leen taqale ñoom nag baat boobu la ñuy bañ dafa am ko ko def est ce que tey nangu nañ nangu ngeen yéen ñi toog fii ngeen génn léegi léegi dem seen kër ngeen ñëw ubbi néeg bi rek fekk fa benn plat benn boolu ceeb bu ñu teg ci benn taabal wala boolu ginaar bu ñu teg ci benn taabal mu ñor xomm ñu tegal la ci ndox mu sedd tegal la ci pomme tegal la ci fruit tegal la ci paaka ak fourchette nga ne waaw ku indi li ñu ne la moo fi indi boppam kon doo ko lekk kenn ci ñun bu duggoon néegam fekk fi lool mu laaj waa kër gi yëpp ñu ne xamuñu ku ko fi indi wallahi doo ko reere da nga naan yii abal leen ma peel wala lu tax kon ñu nangu asamaan bi yaa ñu tax ñu nangu ne moo fi indi boppam lu toll ne asamaan xool ngeen ko ah lu toll ne suuf si xool ngeen ko lu toll ne géej gii ak mbindeef yi nekk ci kaw suuf si ñu ne la ñii ñëpp ñoo fi indi seen bopp kenn indiw leen fi loolu xel nangu na ko wala fi nee nañ saa yoo gisee lu yëngu dafa am ku ko yëngal te la ko yëngal moo ko ëpp doole parce que bu ko ëpp woon doole du yëngu wala saa yoo gisee lu am dafa am ku ko amal kon yàlla dafa ñu wax ci saar bi ci diggante xalq ak ijaad man yàlla maa bind maa amal waaw maa bind maa amal keneen deful loolu subhanahu wa taala mu ne wa fi tashri wal aadaat saar bi ñëw di ñu soññ ci sharia bi yàlla jox ñu waaye saar bi ñëw di ñu wax al ibada ci jaamu yàlla yi ñu war a jaamu yàlla mbokk yi foog ñu xam ne ñun ay jaam lañ waaw dañoo am borom bu ñu moom suñ ne yow jaam nga ça veut dire que da nga am sang ça veut dire que yow da ngaa war a jaamu da ngaa war a topp xam nga ni sax nit ñi am problème nit ñi dañoo war a dañoo bàyyi topp di sos te jullit warul sos dafa war a topp dégg ngeen ma jullit warul sos warul créer dafa war topp rek dem waaw moom warul indi dara lu bees dafa war a dem rek ci diine nag laa wax de ci diine waroo indi lu bees yow da ngaa war a dem rek waaye saa yoo fi neebkaatee naan ah xaaral ma def lii xaaral ma indi julli bi xaaral ma indi koor gi xaaral ma indi lii yaa ngi indi problème parce que lii nga indi kenn santu la ko indi bi nit ñi indi moom moo tax diine bi leer diine bi lëndëm diine bi daal di réer ku nekk indi imagine ñun ñu nekk ci jàkka ji bu fekkee kenn ku nekk da ngay indi fu jëm bu diine bi jëm ah te kenn ku nekk li nga indi da ngaa bëgg nit ñi topp ci li nga indi kon diine bi dafay yàqu comme tey ni mu yàqoo saar bi daf ñuy soññ ci tashri ak ibada waaye wa tazkir mawqif al mukazibina li rusul saar bi daf ñuy fàttali ñi weddi yonent yi fan la ñu mujje pour ñun ñu bañ a weddi saar bi ci biir daf ñuy jàngal ñi weddi njàngale nu yàlla ñi yàlla yónni woon muy yonent yi ñi leen weddi woon fan la ñu mujje la tàmbalee ci aadama ba ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi mujjee ñëw yàlla yonent yooyu mu yónni woon xeet yooyu ñu jaar ña leen weddi woon yëpp fan la yàlla jaar ak ñoom mooy lan yàlla da leen alak kon loolu bu ñu ko déggee ñu nit ñu xam ne bu ñu weddee yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wa salaam ëllëg yowmal xiyaam bu ñu taxawee ci sunu kanam borom rek yàlla du mënu waaye saar bi dafa ñëw wa taqussu alayhim ma xaaqa bi amsalihim saabiqin saar bi daa ñëw di ñu nettali ñoo ñu weddi woon yàlla ñoo ñu weddi woon yonent ya lan moo leen dal ndax xelu na ndax xelu na nga am benn xarit mu liggéeyi guddee wàcc jaar benn yoon gars yi agressé ko duma ko nangu li mu yor mu rëcc daw ñëw kër ga yee la nga yeewu mu ne la place sàngam laa jaar gars yi agressé nga ba gis nga niñ ma def ah yow ca suba sa nga dem guddee wàcc nga jaar ci yoon boobu nga xel nangu na loolu soo ñëwee ba sa xarit bi fi ñu ko agressé woon nga wàcc oto bi nga xool ñaari mbedd yi mu ne la bii lañ ma agressé bii nag moom jaaruma fa woon ban ngay jaar ku may tontu ah beneen yoon bi mu jaarul ngay jaar lu tax ah balaa li ko dal léegi ndax xel nangu na yàlla wax ñu yonent ya ba ma leen yónnee ña leen weddi woon nangam bii laa leen def ñun bu ñu déggee loolu lu nu war ñu moytandiku balaa ñuy weddi la daloon ña ñooñu dal ñu ñu moytandiku la yàlla wàcce woon ci xeet yu njëkk yooyu yàlla di ñu ko fàttali pour ñu xam loolu balaa mbir yooyu di dal suñu kaw waaye wa tazkir sibhum fil wahyi wa risala yàlla di nettali ci alquranam bi ci message yi yonentam yi ñooñu weddi woon ban musiba moo dal seen kaw waaye saar bi yemul ci loolu wa tuzakkiru yawma albaasi wal jaza saar daa ñëw di ñu wax bisu dekki ak bisu fay ne bis a ngi ñëw ci bis yàlla dina rey nit ñi ci àddina bi jële leen fi ñu yóbbu leen suul leen yàlla denc leen ci armeel yi ba àllaaxira jot yàlla dekki leen ci kanamam kenn par kenn mu leen di jël di leen àtte ba àddina bi yëpp jeex ñii mu kontaan ci ñoom mu dugal leen aljanna ñii mu mere leen mu dugal leen safaan il faut dee am su dee amee lan moo ciy tegu dékki su dékki amee lan moo ciy tegu àtte su àtte amee lan moo ciy tegu mooy fay fay waaw boo gëmee lii danaa dee su ma dee dinaa dékki su ma dékkee danañ ma àtte su ma àttee suñ ma àttee danañ ma fay kon lan nga war a liggéey dee moom bis bu nekk ñu ngi koy gis même ñun buñ deewagul ak ñoo ngi gis dee deewagun de waaye bis bu nekk yàlla ñu koy wan bis bu nekk nga dem armée li ñëwaat Sufyaanu Sawri nee na boo demee armée li ñëwaat yóbbu sa mbokk war boo doful war nga xam ne yow mi yaa ci tegu mu ne ki gën a perte mooy ki jóge ci armée li ñëw delluwaat ci caaxaan yi nga jóge armée li nga ñëw di tardewaat julli nga jóge ci armée li ñëw di bàyyiwaat sa diine yow doo nit est-ce que waa ji nga yóbbu ci armée li moom dafa tàppet yambar la amul doole du guerrier du saaba du punkal du ngand du góor ah amul xaalis amul woon ay jabar amul woon ay doom liggéeyul woon amul woon kàttan lii yëpp ma wax mu ngi ci waa ji waaye dee la nit mënta rëcc la budda bil mawt innahu l mawt la yarhamu sagir wala yuwaqiru kabir wala yaxaafu jabbaar dee yërëmul liir wala liir am na ñoo xam ne ñemewuñ liir gis naa góor ñoo xam ne ñemewuñ liir te ñoo ko jur de mais boo nee ñu ne "Ih, sama yaram day daw sama yaram day daw ñi- te ñoo ko jur de xoolal liir boobu nu mu mel noonu ak ni muy séddatee ko ak yaram bi dee yërëmu ko nga gis kilifa diine nu mu nuñ ko respecté gars yi buñ ko séenee fële summi dàll yi summi mbax na yi dee respecté wu ko nga gis ngand dee ñëwoon ne ko kërëb dóor ko ci suuf ragalu ko de dee ragalu ko kon kan la dee bàyyi ah amoon ngeen ki dàq box ci àdduna bi nu mu tuddoon anamu ah anamu dee na amoon ngeen ku dàq karaté ci àdduna bi nu mu tudd anamu amoon ngeen ki dàq kën fu ci àdduna bi anamu malaaka yi kën fu nañ ko ñii ñëpp ma wax ki moo fi dàqoon box malaaka yi box nañ ko ki moo fi dàqoon karaté malaaka bi karaté na ko ah kon nag gis ngeen dee ngi noonu saar bi daa ñëw di ñu fàttali dee di ñu fàttali dékki di ñu fàttali fay di ñu fàttali taxaw ci kanamu yàlla waaye saar bi daa ñëw wa tab wa tabsutu kullu haadihi bi tanbih ila dalail saar bi daa ñëw gis nga lii lépp nag saar bi di wax saar bi ñëwul rek di ko ratatata ni déedéet daf ko indil ay dalil ay dalil yu leer naññ naññ naññ yoo xam ne mënulaa bàyyi lu dul convaincre la dalil yoo xam ne ci sa bopp fil anfus wa fil afaq saar bi di la xooloo sa bopp ne la yow sax boo xoolee sa bopp yëg ne yow da ngaa war a gëm yàlla soo xoolee ufuq yi ori horizon yi ah soo xoolee fii sa kaw sa bët fu mu déparé ba asamaan ba fu muy wër asamaan yi ba fu muy dellusiwaat ci kaw suuf xool biir suuf saar bi convaincre la pour nga war a xam ne yàlla mooy yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaalu kenn du moom te du mel kenn du mel ni moom sunu borom saar bi mbokk yi ba tey ñëw di ñu jàngal wa tuzakkir abal anbiya muy fàttali baayu yonent yi ibrahim ak ay mbooleemu doomam yi nga xam ne ay yonent lañ yàllaa ko ko may saar bi ñëw wa tursidu rusul ila ittibaai hudahum wa suluk tariqihim saar bi ñëw di ñu jàngal sunu baay aadama moomu alayhi salaam ak mbooleem yàlla xéewal yi mu ko defal defal ko ay doomam mu nekk ay yonent saar bi ñëw di ñu orienté pour ñooñu dey dañoo toppoon seeni yooni yonent dañoo soobu woon seeni yoon waaye dañoo takk woon muñ li tax ñu mën a jaar ci yoon yooyu dañoo muñoon dañoo takku muñ ndax ñu mën a jaar ci yoon yooyu kon saar bi mbokk yi ci yii lay wër bay egsi di ñu woo di woo mboolem yonent yi jiitu naan leen qul taalaw atlu ma harrama rabbukum aleykum ñëw leen yëpp ngeen dajaloo ma jàngal leen lan la ar yàlla araamal ci yéen ba aaya ba jeex mu ngoog saar bi ñëw di ko jeexale ci moom yàlla huwa allazi jaalakum xalaif fi l ard xalaa xalaif al ard wa rafaa baadukum fawqa baad darajat liyabluwakum فيما آتاكم إن ربكم سريع العقاب وإنه لغفور رحيم ci muqaddima njëlbeenu saar bi lan mooy saar bi lu muy jàngale borom téere bi loolu la tëjee ci aaya bi ne sunu borom mooy ki nga xam ne moo ñu bind sàkk ñu def ñu ñu nekk kóot laay ci kaw suuf ñi fi nekkoon biñ fi jógee ñun ñoo ñëw ñun danañ fi jógee ñeneen ñëw ñoo ñu jógee fi ñeneen ñëw xalaif al ard waaye ci biir noonu yàlla subhanahu wa taala wuutale ñu ñuy wuutante ñii di dem génération yi di wuutante yàlla dafay njëkkati ñenn ñi rafa baadukum fawqa baad tolloo wuñu ñii dañoo kawe rek ñi wàcc ci ay daraja ci alal ci doole ci mën-mën ci kattan ci ngëm yemuñu loolu yëpp nag lu tax yàlla def ko mu ne li yabluwakum ngir ma nattu leen ma xool man yàlla fii ma aataakum li ma leen may nan ngeen lan ngeen ci def su ma la mayee doole ndax da ngaa war a napp ñeneen ñi su ma la waree ayral ndax da ngaa war a wanewu ci ñeneen ñi su ma la mayee xam-xam su ma la mayee wir su ma la mayee gis nga ndeke kon lépp loo am na nga yëg ne nattu la bu la yàlla nattu pour di xool ñeneen ñi noo leen koy wonee ndax dag leen koy jaay li yabluwakum fi ma aataakum mu ne inna rabbaka sariul iqaab yëgal ne yàlla ku gaaw mbugal la yàlla gaaw mbugal wallahi da ngay yendoo bànneex balaa ngoon yàlla teg la natt natt boo xam ne ku la fekk fi nga tëdd su la ne yow démb fi nga yendu doo wax doo wax yàlla day tey sa gémmiñ gi doo wax te pourtant xoolal yaa ngi yendu ci mbégte nga yendu tey ci naqar waaw mu ne sunu borom ku gaaw mbugal la waaye yemu ci mu ne wa innahu la ghafur rahim moom yàlla jéggalaakoon la yërëmaakoon la mbokk yi saar baa ngi noonu di suuratul an'am yàlla wax na tudde na tudde nañ saar bi an'am ndax baat bi dafa nekk ci biir aaya bi wa ja'alu lillahi mimma zara'a min alxars wal an'ami moo boobu boroom xam-xam yi jël tudde ko saar bi yàlla daf koo dugal ci biir saar bi moo tax ñu tuddee ko suuratul an'am an'am lu muy tekki mooy jur suñ ne jur nag luñ ci nam mooy yi ñu yar ci kër yi al anam moom la tukuloo ni naan neemoraadi ko neema ina neemore baaliɗi ina ñaame kosam ɗam ina yare nguru ngu ina ɓoorne ina waɗe paɗe ina waɗe ɗum woni neema al anam ɗo ngen naan al anam mooy xéewal yi mooy jur yi nekk ci kër yi dañuy lekk yàpp yi di naan soow bi di jëriñoo der bi di jëriñoo kawar yi di jëriñoo dàll yi di jëriñoo béjjén yi yépp la nit ñi di jëriñoo mooy al an al anam yàlla wax na ko ci saar bi mu ne beneen bi saar bi dafa ñëw indi ay at yoo xam ne da koo leeral te mushrikuun yi xamuñu ko woon mu jagal leen ko ba ñu jege seen bopp am yoo xam dañ ko doon def seeni xërëm yàlla tere leen ko moo tax ibnu abbas nee na nazalat suratul an'am bi makka layla saar bi dafa wàcc makka la wàcc waaye guddi la wàcc waaye bi muy wàcc jumlatan waahid globalement la saar bi wàcc lépp benn yoon la wàccandoo yeneen saar yi ay aaya la bii ay juróomi aaya day wàcc bii juróom benn aaya bii fukki aaya bii nangam bii nangam amma suratul an'am bi muy wàcc guddi la wàcc mi ngi wàcc yonent bi alayhi salaatu wasalaam guddi waaye bi muy wàcc globalement la wàccee saar bi yëpp bopp saar bi ba fin benn yoon la wàccandoo waaye ndeysaan li leen wane saar bi dafa am doole bi muy wàcc mu ngi ànd ak sabuuna alf malik sabuuna alf juróom ñaar fukki junni malaaka ñoo escorté saar bi allahu akbar bi ñu bi ñu escorté saar bi saar bi di wàcc malaaka yooyu li ñu doon dof dañ doon sabbal yàlla jalla jalaaluhu di ko màggal saar bi jóge kaw asamaan ànd ak juróom ñaar fukki junni malaaka malaaka yi sabbal saar bi di wàcc ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gaa yi yonent bi du moroom de ñii di ko tëkkaleeg ay xusma njàpp yonent bi dem na bu yàgg raw na leen yoo bi dafa wàcc ci garabu guy gi ci fajar la fa yoo bi wàcc ñëw rek takk ci guy bi toog ba timis jot mu ne guy bi dëgëral de waxal sa reen yi nañu dëgër téyel sa branche yi maa ngi naaw balaa ngay buddeeku guy gi ne ko bi nga fiy tag yëguma ko kañ nga fi ñëw fii nga yenn yëguma ko gaa yi noonu la ñu mel ak Seydina Muhammad raw na leen bu yàgg ñu nekk fii sawaay bàyyi ba jaan bi dem yeewu suba gis fi mu rëddoon jaar fa ñu jël dàll di dóor naan fii la jaar fii la jaar fekk moom yegg na mu ngi fële di nelaw yal nañu yàlla woon dëgg wërsëgal ñu topp ko yal na yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko incha allah kon lii njëlbeen la woon muqaddima ci saar bi samedi incha allah dañuy dugg ci bopp saar bi ñu ñaan yàlla fekke asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu bu fekkee am na ay laaj bismillah